ñëpp te eh, ginnaaw ma sant yàlla e di julli si Yeesu Kirista e di waa di bëgge àdduna e di bëgge boo ma war a bëral ma Kunta Siise e di ko bëgge bu baax a baax yee noonu la demee ko sama tur dëgg ndax dama kaa xam man yee noonu la demee di bëgge àdduna ay ca jox ko mu këllam waaw fay naa la Fatma Dia ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi di sant samay ñaari waajur di sant presse bi fi ñëw ñëpp xam nga di nuyu paa yi fi nekk si mel ni Zal Oni suma lépp di sant tamit Boussa Ketchup maanaam tey lii bu amee sax si loxoy Boussa la xam nga di bëggee gaa yëpp di bëggee sama waa gaa yi waa Seras mafia bi xam ma woo xam naa ne mooy loolu man xam naa ne combat bi yenn promoteur mënuñu ko tëgg ku dul Fallou Ndiaye kon Fallou Ndiaye bu tëggee lu mel nii maanaam du nekkul palmarès waaw coow la rek. Mm. waaw coow la rek mm. moo loolu. ba pare teg si man pël dafa am fu ma waaw man maanaam dama war a fayoo ko si làmb. te parce que dama yàgg si làmb. Mm. waaw dama bëgg a jàppale sama yaay jàppale sama papa. waaw te parce que ñaan a yàlla tey jii combat bi ma am si terrain Laurent am si terrain ñu dugal fa sunu yaay. waaw te gëm naa ne gars yi si jàpp. waaw di nuyu tamit Pape Diouf bu baax. waaw li Fallou Ndiaye wax nii léegi ba mu ba mu koy woo man moom Fallou Ndiaye poussé ñoo taxawoon. Pape Diouf wax loolu ne maa maa moom dinañu jëndal ku nekk trois blocs kon loolu noonu bëgg loolu rek dafa neex xam nga kon man damay sant gars yi fi ñëw ñëpp waaw kii nag man aw ma lu may wax ci moom. loolu dëgg-dëgg nu mu tudd. waaw Roland Gomes la tudd. Roland Gomes la tudd. man kii dama kaa xam. Ah. xam nga mooy loolu deful dara ci lam benn combat la bëre footballeur la daan. waaw Plateau footballeur la tam man Bou Siteu man bii mooy sama dixième combat. kii ku mu daan kii ñu mu daan jadi jadi dan ka kaa gis si làmb. Hmm. Malick Ndiaye 37 fu yaxu daaw la comme moom kii lënd la daa yàgg. yee kii billaay wallaay bëri na yéen ñii diñ vidéo moom moo leen mag. yee comme kii nii maanaam man damaa ñaax fayda say kii maa ko mën fuuf. billaay wallaay taalaay sama ménagère a ngi ménagère ma ngi. yee naaj nañ teg si ñu moo ni sama avant sax laa wax bëgguma ko ye maa ngi moom wéeru ma ko si gàllaaj ye làmb doole la ak sañ-sañ ak man-man bu dëggu ye billaay walaay maa kii du dossier ye kii motul mbamb sax yé day daw peloton motul mbamb ye noonu la demee nag làmb gi ku jëf rek da ngay jël mais Farma di wax ne maanaam comme ça ñit ñi wër la nii wala nga toog sa koñ nante yi wër la nii ngay def émission di mbaraju di wax loolu neex dafa neex mais ay buñ tëjee barrières yi léegi ma loolu laay laaj waa Sénégal ah, ay buñ tëjee barrières yi arène nationale nii booy Malick Ndiaye moo la gën a wax téeméeri ah, junni non duñ dem duñ dem fenn fii la ñuy taxaw ñu wax li ñuy wax billaay wallaay mun naa ñëw de jàpp ko daan de du ma ko def ma koy dóor ba mu nekk nit daan ko yee noonu la demee nag yee lu ko dëbb moo ko mokkal kii dafa neex kii bu waxee loolu xam nga ne day reetaan loo ñun ñi rek ay ku bugul sa papa luy loolu ay ku sa papa. a buku papa. waaye dul laa la wax. a buku papa la wax. naan la wan keeso meeso reeso tàngal mante fereeso. man damaa nekk ci yoon man du booy ndaw yi ñoo may tee déggul ma la kii maa ngi du ay palmarès coow la rek. man coow moo tax ma jël ko ma ñu fay ma si loo xam te dama koy dégg rek musuma ko fayoo te dama pare pour tax ma jël combat bi mm-hmm. waaw combat bi nag ñu bëri sama mag góoraa sax bëgg ko mm. mu ngi ba Espagne di ko nuyu di nuyu jabaram mm. combat bi maanaam amul kenn ku ko bëgg mais damay dama bëgg gars ñu xam ne combat bi dama bëgg a teral sama yaay teral sama papa bëgg leen a am fu ma leen dugal moo tax ma jël combat bi mais kii du ma moroomam jël combat bi kenn bëgg ko combat bi coow la zal oni chaque jour mu wax ci combat bi bëggul woon alxuraan ak combat bi ñuy bëre nii mu ne ñu lu ma leen def si àdduna yëpp maa ngi jéggalu ku dee ak sa bàmmeel kii. billaay wallaay xamul woon ni da ngeen di bëre bu bii mooy troisième fois mu wax sorti mais man loolu daw sama yaram. da ngeen gaale bëgg yaa ko wax. lan laay fan kii maanaam day comédie rek. man nante yi xam ma bu baax. daa daa am lu muy incarné. Ah. yee man loolu daw ma man nante ñoo may bëggee. yee lamb ji lamb la dama gis moom Malick Ndiaye 37 fu mu woote carte yee te mbéykat yi dañuy carte kii tapet la. xam nga yàqu kii Malick Ndiaye déggoon ngeen lu mu fi doon wax yëpp ma ñëw stade bi indi 300000 sa kanam. dañuy carte xaalis kii yaa may kii seku maa moom ay carte parce que du ma moromam. kii xam la may wax ji bisu combat bi dama kaa jëfee maa booy plateau dama ko wax lu dama ko wax lu leer xam nga lu ma la wax ñëw jël ko mooy loolu noonu jàpp sànni fële. boo bi du dossier kii loxoy dëgëru su dóoree dóor ah? dëgër day damb. déglu ma la wax man waa géej waaye nante sax xam nga la lañ ma wax kii bul nekk fii sax di teesanteeg moom di waxanteek moom te parce que doo moromam. bii mooy sama dixième combat moom bii mooy deuxième combat am. benn combat laa bëre. yee daa doo tëkku lis ma ne ko balaa ngaa bërëg lis foog nga ah, lëmbal wax nga ma ko maa ko balaa moo bërëg lis foog mu lëmbal waaw kii te balaa moo bërëg man daa lëmbal moo tax mu dem jëlee ak kii ne dafa mbër waaw tey jii nii xoolal lis maa ko ay ndam sept victoire la am am ñaari défaite léegi moom it tapet la moo mu jël ma waaw su ma tapetoon du ma la jël teewul ma la man coow moo ñu ba pare ñu fay ma si combat bi loo xamante ne nii lañ ma fay lañ ma fay ëppale woo ma si ma si dërëm demal nga demal nga waaj rek pare pour lan sama loolu yëpp kii na xam ne bokk ma ko genn golo bàcc ma ko ak jëfinu malam kii dafa mën a mbaraju rek kii du ma moromam kii bu ma ko jàppee moo xam ne kii bu ma ko yi muy def nante yëpp taxaw maa ngi moom rek ñu tëj dama yàqamte maanaam Fallou Ndiaye bëgguma sax combat mu koy léegi léegi a da ngay déglu ma wax Fallou Ndiaye déglu ma la nga Fallou Ndiaye bëgguma sax muy Fallou Ndiaye bëgguma sax muy yóbbu combat bi ci foo xamante ne ni muy sore ay dar yu sore na eh, jàpp dat bu gaaw ma man defaral ma met dugg ko suuy du ma moroom. bilaay wallaay taalaay kii du dossier. kii lekk luwul. bilaay wallaay taalaay. ku ne jaara bandi moo koy laaj ay Malick Ndiaye kii Malick Ndiaye moo ko dafa wax fuuf. di wuyoo milieu. di daw. yee naas te ñun dañoo dem ba teeral. yee daa am loo xamante ne da koy dugal kii du bandi bandem xaayul. mais Fatma eh, comme xam nga bu mu dox. Fatma Dia yow micro bi kii rek nga koy tiimale dama ko nga may tiimale micro bi kii du bandi kii tapet la te dinaa ko teg lu métti. yow bilaay kii du ñemewuma Fatma Dia fii laa ko def barki Serigne Touba kii man ak moom rek ñu jàkkaaroo arbitre bi barki alxuraanu karim dama koy duma duma yi métti daan ko. Ronan dama lay duma duma yi métti daan la du ma sa morom. waaw ah, man du ma morom. tiimale ko li may wax dara wax ji bëriwul kii li ma koy wax naa ko. li may wax waa Géejawaay muy maanaam. combat bi xam naa ne am na ñu bëri ñoo xam ne neexu leen mais maanaam ci coow moo ñu boole du palmarès ku am sept victoire a ku am benn victoire du benn xam nga du bëggee Zal Oni bu baax du bëggee waa Géejawaay di wax ne gars yi waaw maanaam nañu waaj rek kii coow moo ñu boole. demee di bëggee ma ah, ne àdduna yee man Guédiawaye fa laa dëkk sama gaale bu mag mooy foofu noonu. yee fa laa juddoo fa laa defee la maax saaka jor ñoo bokkoon secteur. yee mais samay lépp a ngi jàmm gën suñ kër gu mag a nekk Guédiawaye géeju fa. yee mais man àdduna may bége du jàmm gën kese bégewu ma. yee man àdduna laay bëgg ba fu mu dëkk kii gàllem sax dañ may supporté di ñaanal Siteu may ko ndam ci kaw amiin waay amiin waay la indi woon de yow loo indi euh, dis yaa ñoo indi rocci sa pour rocci sa pour yow loo indi dañoo soxor dañuy rocci ba tey kii kii kii ñeme naa taxaw man di wax rocci puuj kii su lekk nit daganoon yaram bi laay dagg teg ci biir yaa kii amul fitu sax ma la sama arbi na piir mu taxaw dëggal boppam mooy kii tollul ni nit ñi. kii arbitre ñemewul na pip ma jublu si mu taxaw arbitre sifflé nii ay xaay Thank you.